mbokk jullit yi mbokk déglukat yi nga xam ne ñooy déglu seen clic ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla na ñu yàlla nangul ziyaara bi di ñaan seen seen clic yal na yàlla boole ko ci seen yi gën a rëy ci Sénégal ba yéene bi ngeen am yàlla yàlla mottali leen ko yàlla defal leen jàmm commencé ci ki ko jiite ak képp koo xam ne yaa ngi fiy liggéey ci barke sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke li ñuy waajal te mooy weeru koor bu màgg bi mu mel ni ci côté bi nga xam ne moom la ñu war a commencer émission bi mooy wàllu weeru koor ndax ci la ñu jëm kon introduction bi la ñuy def jëmmale ko ci lan mooy koor mooy taarifu sawm wala siyaam définition yi nga xam ne moom la koor am moom lañuy ñu njëkkee bala ñu dem ci lan mooy koor la ko yàq la ci farata ci sunna waaye ñu waxagum lan mooy asiyaamu lughatan maanaam sawm asiyaamu lughatan al imsaaku wal kaffu wal imtinaa bu ñu ne koor ci langue arab li muy tekki mooy al imsaaku mooy téye sa bopp wal kaffu wal imtinaa te mooy nga bàyyi wala tere sa bopp li ci lépp loolu mooy al assiyaamu luxatan fan lañ ko teg mooy yàlla subhanahu wa dafa nettali ci alquran di nettali saydatina Maryam alayhi salaam ci bi nga xam ni histoire boobu dégg ngeen ko ba tàyyi ci Isa ni ko woy juram ni ko yaway juram jure ba ëmb ba amee ñu commencé du tuumal Maryam ba ñëwee di ko laaj alquran mooy nettali dafa wax ne inni inni nazartu lirrahman sawma falan ukallima alyawma insiya dafa wax ne inni man maryama nazartu dama nizar lirrahman ñaar sama borom sayama sawman pour woor falan ukallima alyawma insiya kon du ma wax ak tey kenn benn nit du ma wax ak moom tey kon asiyaamu li muy tekki mooy mooy nga bañ nga téye sa bopp boo demee ci sharia al islami wa amma shar'an fa huwa imsaakun maqsuusun fi zamanin maqsuusin bi sharaa'itin maqsuusatin aw imsaakul mukallafi binniyati an altaami walsharaabi walshahwati wa jamici almuftirat min tuluci alfajri alsaadiq ila gurubi alchamsi boo delloo ci sharia li muy tekki mooy imsaakun maxsuusun mooy téye sa bopp bu loo xam ne dañ ko jagleen ci jamono buñ ko jagleel ci ay charte mooy ay conditions yuñ ko jagleel loolu mooy ci sharia walla nga ne mooy mukallaf bi yéene téye boppam ci bañ a lekk ci bañ a naan ci mbooleem loo xam ne mooy bànneex ak mbooleem loo xam ne moo mën a dog koor commencé ko ci fajar bo ba jant bi di so loolu li muy tekki mooy idan la yakfi an tasuuma an altaami walsharaabi bal laa budda an tasuuma aynaaka wa yadaaka wa rijlaaka laa budda an tasuuma haasihi al alsina allati taawadat alkadibi walxiibati wannamima dañu wax ne mënta ñàkk woor bi kese kese du doy nga bàyyi lekk bàyyi naan rekk loolu kese taxul ñuy wax ko bàyyi lekk ak naan li nekk li am ba am moo nga woor say bët na woor say ñaari loxo na woor sa ñaari tànk yi na woor kon yooyu nga xam ne tàmmoon na wax lu dul noonu mooy wax lu dul dëgg waaye tàmmoon na jëw tàmmoon na rambaaj moo tax benn saxaaba bu màgg bu tudd jaabir ibn abdullah moo waxoon ni qaala jaabir ida sumta falyasum samcuka wa basaruka wa lisaanuka an ilkazibi walmaxaarimi wa da azal jaari walyakun alayka waqaarun wa sakinatun yowma yowma sawmika wala tajcal yowma sawmika wa yowma fitrika sawail jaabir dafa wax ni soo wooree mu ne na fexe ba say nopp yu te mooy bul déglu lu xaraam muy benn ñaareel bi mooy wa basaruk say bët na ci nga bañ a xool lu xaraam wa lisaanuk sa làmmiñ nawoor te mooy bu mu fenn ci lépp loo xam ne mooy lu xaram bu sa làmmiñ tudd loolu mu ne nag wa daa na nga bàyyi azal jaari lor dëkkaale mu ne wal yakun na nekk alayka ci yow mi woor waqaarun nga téye sa bopp wa sakinatun nga dal bés bi nga wooree noon nga war a mel mu ne bul fexe mukk wala tajal yawma sawmik wa yawma fitrika sawaa'in mu ne bul fexe ba def sa bés bi nga wooree ak bés nga wooru ñoom ñëpp ñu yem moo tax benn woykatu arab wax ni yaqulu ashaairul arabi ida lam yakun fi sam'i mini tasaamumun wa fi basari xaddun wa fi mantiqi sumtu fa xaddi min asaw min sawmil wa zamau fa in qultu inni sumtu yow mi fama sumtu arab bi dafa wax ni su fekkee ne samay nopp woorul samay bët woorul sama làmmiñ woorul mu ne kon awma benn cër ci weeru koor bi ci koor gi lu dul xiif ak mar mu ne kon su fekkee ne dama wax ne dama woor bés boobu mu ne kon wooruma kon weeru koor ñëw na pour am solution yu mu indi ci pénc mi jiite ya ramadan li taquuna lil alsinati suumi an il kazibi wal xiibati wan namimati maanaam weeru koor ñëw na pour wax ne làmmeñ téyeel sa làmmeñ wi wooral anil kazibi ci fen wal xiibati ak rambaaj wan na wan ni xiibati ak jëw wan namimati ak rambaaj ñaareel bi mu ne jiite ya ramadan weeru koor ñëw na li taxoola ngir mu wax lil butuuni ci biir lan la koy wax suumi an ak lil xaraam yi na nga woor ci lépp loo xam ne mooy lekk lu xaram jiite ya ramadan li taxoola lil arjuli suumi an il machi ila alxaraami nee na koor ñëw na pour wax tànk yi ne na nga woor pour bañ a dox dem ci lu xaram jiite yaa ramadan li taquula lil uyuuni suumi an il nazari ila alxaraami moo tax weeru koor nee ñëw na pour wax bët ne la wooral ci woor lépp loo xam ne moo xaram moo tax asalafu saalix ñoom dañu wax ne ahwanu siyaami tarku taabi wa sharaabi ñoom dañu wax ni koor li ci gën a yomb mu ne mooy bàyyi lekk ak naan kon ci taarif boobu mooy li nga xam ne moom moo aju ci weeru koor léegi kon ñaareelu point bi ñu wax ko tuuti rek ci émission bi ndax du yàgg dañu bëgg rek quelques et yoo xam ni nit ñi dinañ ko mën a jëriñoo ci pendant ramadan bi incha allah weeru koor boobu ñu wax nag yàlla subhaanahu wa moo ko farataal ci képp koy jullit te am majeur ànd sa xel te nga wér te fekke weeru koor bi su boobaa daf la war yàlla subhaanahu wa moo wax ne yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum asiyam kama kutiba ala allazina min qablikum laalakum tattaqun yàlla moo wax ne e eh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm moo tax alquran mbokk yi seetaan Senclic alquran saa yoo dégg mu wax ni yaa ayyuhal lazina amanu rek xamal ne képp ku gëm yàlla rek yaa ngi ci nga bokk su boobaa ñu ne da nga war a woyu benn mu wax la loo war a def nga am ci njëriñ wala mu tere la loo xam ne boo ko bàyyee njëriñ ak ja kon moo tax alquran wax ni yaa ayyuhal lazina amanu ay yéen ñi gëm yàlla kutiba alaykumus siyaamu faratal nañ ci yéen weeru koor kama kutiba ala alladina min qablikum comme nañ ko farataale woon ci ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu la laallakum tattaquun ndax ngeen jëlee ci ragal yàlla mbokk yi déglu mbokk yi seetaan kon lan la ñuy dégg ci aaya bi kon ndekete yàlla daf ñu indil benn séminaire bu ñu war a def pendant fanweeri fan wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent séminaire boobu buñ ko defee ba mu noppi war na am benn attestation boo xam ne dañ ko cay jëlee attestation ba mooy attaqwa mooy ragal yàlla moo tax ndax ku dem séminaire bu séminaire bi jeexee dina am attestation yañ lay def jox attestation bi nga xam ne moom lañ war a jëlee ci koor mooy attaqwa allah te mooy ragal yàlla kon nañ ci góorgóorlu bu baax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni suumu tasixu na ngeen woor ndax ngeen wér kon woor weeru koor dafa ñëw ne non jàmm yàlla la waaye dafay faj danañ ci ñëw xam naa ci yeneen émission yu ñëw bu ko defee dañu indi ñaari point ñetteelu point bi te mooy arkaanu saw mi maanaam weeru koor dafa am lu ñu tuddee al arkaan al mooy ponk yi ponk yi li muy tekki mooy li nga xam ne bu newul ci koor gi rek koor gi mënul baax bi ci jiitu mooy an niyatu yéene yéene fas yéene woor weeru koor bi loolu dana ci indi ay détails ci mazahib yi boo demee ci mazhab al ñoom dañu wax ne takuna an niya qabla al fajri li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wa man lam yajmaci siyaama qabla al fajri fala siyaama lahu ñoom dañu wax ne ki nar a woor weeru koor nee na yéene bi ne na danga ko sart la ci nga def ko avant fajar ndax Seyduna Muhammad moo wax ni képp ku fanaanuwul woor weeru koor dina amuloo koor kon ci mazhab maliki balaa koor gi di baax bu fekkee dañu wax ne le vingt-neuf muy àllarba dañu seentu weer wi gis ko ca ngaay fas yéene woor weer wi yépp ñu wax ne foofu nag benn yéene bi doy na ba weer wi jeex su fekkee ne da dog ci diggante bi moo xam da nga feebar moo xam bu dee jigéen mu gis mbaax wala bu am doom su boobaa boo demee boo commencé bugg a wooraat dangay nga fas yéene waat woor waaye yéene nag du lu ñuy wax dangay ngay fas ci sa biir xool ni fas naa yéene woor weer wi ba mu jeex su boobaa ci mazhab maliki ñu ne boobu mën na la yóbbaale boo weer wi jeex feek doguloo rek doo beesalaat sa yéene waaye boo demee ci mazhab imam ashafii wala ahmad am ambal ñoom dañu wax ne yajibu tabyitul niyati qabla al fajri fi l fardi duna tulu duna tatawa ñoom dañu wax ni bala ñu wax ni yéene bi danga ko war a fanaanoo avant fajar mu ne day fekk mu nekk kooru farata waaye bu dul kooru farata mu ne doo ko fanaanoo comme mazhab maliki moom woor bu mënti doon da ngay fanaanoo am yéene pour woor suba ndax xadisu sayyidatina Aïcha bi moo tax lii firnde ne bu dee weeru koor dangay fanaanook ñoom yéene bi pour war a woor suba waaye bu fekkee ne nag wooru gàtt nga la wala man woolu coobare par exemple nga xëy rek ndékkiwuloo boo yeewoo rek bu la neexee nga fas yéene woor bëccëg bi ndax Sayyidatina Aïcha moo nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw ci ñoom ne leen ndax am na lu fi nekk ci ñam ñu ne ko déedéet sayyiduna Muhammad ne kon inni saa'imun ndax anna nabi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaatiha fa yaqulu hal indakum taam fa qulna laa qaala inni saa'imun bu ñëwoon ci ñoom da leen wax ne est-ce que am na lekk bu fi nekk bu fekkee ne am na ñam wu fi nekk su boobaa mu ndékki bu fa ñam wa nekkul nag su boobaa dafay wax ne kon man dama woor waaye bu dee weeru koor nag il faut nga fanaanoo ak yéene foofu ñu def ci rek benn leeral bu ndaw su fekkee ne weer wi dañu wax ne dañ ko séenu àllarba waaye bi ñu ko séenee gisuñu ko ba nga dem tëddi xool nga nga yeewu fajar ñu ne la ah weer wi de mujj nañ koo gis information yi joxe nañ ne weeri wi feeñ na su boobaa yow mi mu war a woor da ngay yéen da jàpp rek woor waaye bés boobu danga koy fay lu tax parce que bi ngay tëddi booba amuloo information ci weer wi waaye bu fekkee da ngay yeewu une heure du matin dégg ñu ne information bi génn na boo woor wi feeñ na su boobaa mën nga fas yéene ci guddi gi bu ko defee nga tëdd bu fajaree nga fas yéene woor bëccëg bi su boobaa doo fay waaye bu demee tëddi bi nga yeewoo ci fajar ñu ne la weer wi feeñ na su boobaa da ngay def al imsaak waaye bés boobu da koy fay après kon li ma doon wax rek loolu dafay farata nit ñi war koo xam ci weeru ko beneen bi ci des mooy boo demee ci mazahib shafii wala ahmad ibnu ambal walla abu xanifata ñoom dañu wax ne yéene ci biir koor bés bu nekk danga ko wara a yéene Malik ñoom dañu wax ni weer wi bu feeñee rek mën nga fas yéene woor weer bi ba mu jeex takk mu ne waaye nag war nga ko beesal boo dogee ci diggante bi waaye bu dee mazahib yi ma la wax comme shafii ahmad ibnu ambal abu xanifata ñoom dañu wax ne guddi gu nekk da fas yéene woor suba bu ko defee nag ñu wax ne weer bi pour ñu woor nan lan moo war a daje pour ñu woor moom lañu tëjee émission bi bi ma yasbitu as shahru ramadan boroom xam-xam yi ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne yasbitu shahru ramadan bi ru'yati al-hilal li qawlihi subhanahu sallallahu alayhi wa sallam li ru'yatihi waftiroo li ru'yatihi fa in gumma alaykum fakmilu iddata shaaban thalathina yawman rawahu buxaari wa muslim yonent bi dafa wax ni dama bëgg a wax ne pour ñu wax ne dañu war a woor suba wala dañu war a seenu weer bi ba nopp suñu ko gisee dañu war a woor suñu ko gisul duñu woor tegtaloo ci xadis bu sayduna muhammad wax ni suumu na ngeen woor li ruyatihi ci gis weer wi waxtiru na ngeen dogit li ruyatihi bu ngeen gisee weer wi waaye nag fa in gumma alaykum wakmilu fa akmilu iddata chaabaan salaasina yowman waaye bu fekkee ne dafa lënt mu ne kon na ngeen mottali chaabaan bi ñu nekk fanweeri fan loolu li muy tekki mooy bu fekkee ne def asamaan si dafa dafa lëndëm c'est-à-dire nuages dafa bari ñu seenu weer wi gisuñu ko sharia li mu wax su boobaa mën na am sax weer wi feeñ na mu ngi fi waaye nuages yi moo tax gisuñu ko moo tax Seydina Muhammad wax ne ba fa in ghumma bu lente rek mu ne na ngeen def Shaaban muy fan weeri fan bu ko defee bu ngeen wooree bu ngeen amee fanweeri fan bu ko defee ca ba ca topp ca la ñuy commencé woor waaye nag am na loo loo ñu tuddee ixtilaaful mataali maanaam jant bi wuute gi nit ñi wuute ci wàllu dëkkuwaay lu mel ni ñi dëkk Asie ñi dëkk Afrique ñi dëkk Amérique ñi jant bi di wuute ci ni muy fenkee moo tax boroom xam-xam yu waa bari wax ni ixtilaaful mataali la yu'thiru fi ru'yatil hilal maanaam du am benn jeexit ci niñ ko waxee ñoom gis weer wi c'est-à-dire ñoom dem nañ boona wax ne fu weer wi feeñee ci àddina si yëpp ñëpp jullit yi ñëpp mën nañu woorandoo loolu tamit déggin la am na ci moo tax moo fi zara alhilaalu ahlu baladin islaamin wajaba ala saairi al aqtaari islaamiya an yasuumu mu ne tey bu ñu wax ne arabu saoudite wala senegal gis na weer wi même arabu saoudite buñ ko déggee dañu war a woor naka noonu it sénégal bu ñu déggee ne yeneen réew yi gis nañ ko mën nañu woor waaye loolu yëpp nag am na ay wute yu ci am moo tax am nañu wax ne li kulli baladin ru'yatuhu ku mel ni imam Shafii wala Abu Hanifa ñoom da wax ne anna li kulli baladin ru'yatuhu mu ne réew mu nekk ak seen gisin moo tax foofu dama bëgg bàyyi bàyyiloo nit ñi xel ci ne arabu saudite woor nañ gis nañ weer wi Sénégal gisuñu weer wi wooruñu loolu warul indi ay polémique ndax yëpp dama wax ne ci wàllu fiqhul islaam yi amul benn masala ci fiqh lu dul boo xam ne boroom xam-xam yi wuute nañ ci kon Seydina man moo waxoon ne ixtilaafu ummati rahmatun maanaam wuute gi xeet bi di wuute ne na yërmande la kon ki nga xam ne moom dafa ne Arabie Saoudite gis nañ ko mu woor am na raison pour woor waaye ki wax ne man gisu Sénégal gisuñu ko mu bañ a woor moom it am na raison kon nag kenn ku nekk la nga xam ne moo dal sa xel rek nag ci jàpp te bañ a tuumal kenn bu ko defee mbokk yi ci yii point daal la waxoon ne moom la ñuy ubbee émission bi di ñaan yàlla mu may ñu ba ñu fekkee weer wi jàmm ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp loo xam ne moom lañu ci yéene ci woor ko ci jàng alquran ci saraxe ci wax lu baax dox lu baax déglu lu baax yàlla ñu ci yàlla xiir waaye ñu ñaanal suñu réew mi ak ñi nga xam ne ñoo yenu réew mi ak ñi ko dëkkee yàlla yàlla defal leen jàmm yàlla nañ ko woor ci bismillahi rahmaani rahim ci lépp luñ ci ñaan yàlla nangul ñu ko waaye ñu génn ci alhamdulillahi rabbil alamin bu nga xamee ne bu ñu génnee ci weer wi yàlla dena foot sunu yëpp bàkkaar bu nga xam ne dañuy am attestation bu tudd taqwa yàlla ñu ko yàlla defal wa ma dalika alalahi bi aziz aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum ki doon def waxtaan wi mooy seen mbokk oustaz Ousmane Ndiaye maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu